asalaamaaleykum asalaamaaleykum maa ngi leen di ziar yéen ñëpp chaque fois di jégalu ci dérangement yi chaque fois ci direct yoo xamante ne moom laay lancé a chaque fois donc asalaamaaleykum maa ngi ziar ñëpp donc euh, asalaamaaleykum donc comme ni ma ko doon waxee sànq ah, te dama bëgg ñu waxtaanee benn sujet boo xamante ni Sénégal on n'a pas l'habitude d'en parler te am na lu bëri loo xam ne moom mooy non di sur ce sujet là donc euh, débat bi. du am intervention dama bëgg mu nekk benn laaj bu gàtt boo xamante ni mun nañ ko partager avec tous les sénégalais donc lu ma fiy wax tamit du bible du évangile mais loo xamante ni man euh, expérience per par expérience personnelle moo tax may wax ak pour avoir fréquenté ay nit ñoo xamante ni c'était les acteurs euh, de révolte bu amoon de la population casamançaise ñu nekk Paris fii nii ma xam ci ñu bëri ñu expliqué ma ay fait yu bëri te ma liir ay documents yu bëri ci conflit Casamance loolu moo tax tey ma ne xaaral ma prononcé wu sur cette question euh, feu Lansana Goudiaby ki nga xamante ni décédé na man j'ai eu à le fréquenter on on toog nañ ci benn table ñu waxtaan sur le problème parce que man je cherche une solution pour qu'on termine avec cette crise casamançaise donc am na nit yu bëri maa ngi yor seen carte ñeneen du ma fi wax seen tour ñoo xamante ni chaque fois dinaa leen laaj parce que man la question elle me préoccupe ñu pare bi quoi léegi moo tax chaque fois dinaa xool entité yëpp di discuter ak ñoom pour ñu xam réellement nan génnee ak lan mooy solution pour ñu génn ci donc lu ma fiy wax <coughs> wax naa leen ko du bible du évangile mais début la de vérité début la de d'explication ci comme problème mu esclavage tubaab yi nu ñu koy raconté seen doom yi problème mu Casamance ñu bëri noonu lañ ko xamul noonu noonu lañ ko méconnaître ñu bëri xamuñu ko. parce que dañuy dégg dañuy dégg dañuy dégg mais ñu bëri xamuñu ko et ñu bëri jëluñu temps pour xool vérité buy caché wu ginnaaw euh, tout ce discours la wala tout tout tout ce toute cette communication autour de la Casamance. moo tax ma ne je prends le risque aujourd'hui ah parce que xam naa ni c'est un sujet très très sensible te ñu si bëri. duñ ci bëgg a wax parce que dafa sensible mais comme ni ma leen ko waxee man dama ñëw pour briser tabou yi je n'ai rien à faire de euh, loo xamante ni moom mooy ay sujet yu tabou yoo xamante ni c'est interdit d'en parler ok man je parle de tout boo leen ma si yàggee déglu di ngeen xam ne man awma benn sujet tabou ñëpp laay attaqué bu ma bu jaree ma attaqué leen donc je suis quelqu'un nga xamante ni awma ma filtre ci sujet yu may abordé donc voilà bu ñu bëggee Sénégal avancé noonu la ñuy commencé def ñun ñëpp ñu commencé teg lépp ci dëgg comme nu ma koy waxee man je me réclame de ça donc ma expliquer leen gis ngeen euh, problème mu Casamance ñu bëri nuñ ko yaakaaree demeewul noonu te am na ay responsabilités yu bari yoo xamante ni dañ ko ci war a situer donc partagez leen direct bi incha allah du yàgg pour ñu amul pass ñu mun ko suivre te damaa bëgg sénégalais yëpp ñu bëri ñu si bëri ñu déglu message bii nii donc problème mu Casamance. gars yi nuñ ko expliquer euh, ak man ñu ma ko jàngee ak ñu ma rencontré ay acteurs ñu wàccee drapo bi Ziguinchor jour bu ñu wàccee ma jour bu marche boobu am ma expliquer leen man a travers synthèse synthèse bu ndaw lan laa ci comprendre du am intervention maa ngi gis gars di bëcc ci bouton bi du am intervention donc ma expliquer leen euh, gis ngeen ay nit ñoo dem di marche une marche boo xamante ni marche pacifique la comme marche ñoom Martin Luther King parce que dañoo gis ni Euh, Casamance au début portugais ñoo ko colonisé donc nekkuloon euh, an kii euh, annexé du français yi ñoo ko colonisé woon portugais ñoo ko colonisé français coloniser beneen partie du Sénégal léegi portugais bu ñu colonisé Casamance ñu am une résistance farouche de Casamançais yoo xamante ni ils n'ont jamais accepté de se soumettre à la dictature des portugais donc portugais yi ñu am problème bu bëri euh, ci résistance boo xamante ni Casamance opposé nañ leen ko donc après résistance boobu portugais yi jël Casamance jox ko état français ne ko Casamance mu ngi nii jox nañ la ko mais peuple la boo xamante ni ils sont ils sont des guerriers yoo xamante ni ils ne se soumettront jamais à leur à votre volonté français yi jël Casamance ñu rencontré opposition bu farouche boofu ngeen foofu ngeen di déggee ay euh, Aline Sitoé Diatta mu xeex ak tubaab yi xeex ak xeex ak ñoom xeex bu metti boo xamante ni franchement elle n'a jamais accepté de se soumettre euh, ci colonisation boobu noonu donc français yi am fa problème bu dul jeex agriculture boo xamante ni Joola du affaire de Joola parce que affaire question Casamance bi dañ ko def affaire u Joola mais du question de Joola du affaire u Joola Casamance dafa bëri ay ethnie dafa bëri population donc population casamançaise bi la la doon dundee bay la doon dundee ak euh, euh, agriculture vi kii quoi riz riz lañ doon béy léegi français ñëw imposer leen culture arachide ñu bañ Aline Sitoé Diatta ne leen ñu boycotté ko ñoom ñëpp ñu boycotté ko ba euh, volonté tubaab yi am opposition boo xamante ni tubaab yi xalaatuñu ko woon donc tubaab yi am ci problème yooyu noonu après problème boobu tubaab yi jël Casamance boole ko ak. Sénégal donc ay Haute Casamance Basse Casamance lañu doon wax ñu jël lépp boole ko ci benn pays ne Sénégal Casamance ak Sénégal yépp benn pays la ok léegi loolu bu mu amee Senghor déglu leen bu baax Senghor avant muy nekk président moom moo dem rencontrer ay leader Casamance yi mu promettre leen ni il va leur donner l'indépendance quand il sera président déglu leen bu baax wax yu may wax ay wax yoo xamante ni mosoo leen ko dégg laa fi wax donc mu ne Casamance yi man bu ma nekkee président dinaa leen jox seen indépendance Senghor moo ko wax sengor dem nekk président Casamance yi ne ko yow yaa ñu diggoon indépendance jox ñu suñu indépendance Senghor ne leen du leen jox indépendance ok Casamance yi seetaan xool comment ça se passerait comment euh, daba état bi nu ñu koy gérer yëpp donc gars yi ñu gis ni euh, xam ngeen Casamance daa xaw a enclavé donc am na côté Gambie foog nga traverser Gambie pour nga dugg Casamance enclavement Casamance boobu noonu xam naa ak politique état bi. jëluñu temps pour vraiment ñu xool nan la ñuy désenclaver la Casamance ñu defar fa ay infrastructure wala ay usines ay affaires yoo xamante ni mun na employer jeunes wala ay écoles yoo xam ne mun nañu permettre Casamance ñu jàng donc dara amutoon Casamance presque les premiers intellectuels casamance ils étaient obligés ñu dem jàngee Dakar bu ñu eggee ci yenn niveau yi te la plupart d'entre eux dañoo échoué si seen jàng parce que dañoo rencontré ay situation yoo xamante ni ils n'avaient pas de parents à Dakar ils dormaient dans les rues donc ils n'avaient pas de possibilité de réussir leurs études donc ñu si bëri dañoo échoué ci seen étude donc les premiers intellectuels casamançais dañoo échoué gis ngeen ñoom ñu si bëri dañoo échoué parce que condition Dakar yi dafa metti woon te il n'y avait pas d'école yoo xamante ni mënoon nañ leen permettre Casamance ñu continuer seen étude donc après administration sénégalaise ñëw implanté wu ci Casamance léegi bu mu ñëw wu ci Casamance ça avait l'air d'un envahissement pour les Casamançais parce que les intellectuels qui travaillaient ci administration yooyu noonu c'était des gens yoo xamante ni c'était pas des Casamançais parce que Casamançais yi amuñu woon euh, niveau diplôme yooyu noonu yoo xamante ni c'était requis pour ñu mënoon nekk ci administration yooyu donc les Casamançais étaient se voyaient un envahissement donc ay nit yoo xamante ni ils sont venus d'ailleurs ñoom ñoo occupé toutes les toutes les fonctions ñoom ñoo occupé seen seen ki entreprise yi ñoom ñoo occupé lépp bureau yi ñoom kese ñoo fa doon nekk. donc ñu gisee ko comme envahissement loo xamante ni euh, les Casamançais étaient écarté ñeneen ñi ñëw di leen gouverner di leen imposer seen seen seen vision wala seen réalité. donc loolu bu mu amee donc marche bi bu mu amee Casamançais yi dañ leen door te yoruñu woon jaasi yoruñu woon paaka yoruñu woon dara seeni tam-tam la ñu yoroon di woy di fecc di avancer ñu dem wàccee drapo bi yéegal drapo Casamance mais dañ leen massacré gars yi dañoo tiire seen kaw dañ leen tiire gars yi fippu ñu daw ñu tas leen parce que état sénégalais bi moment boobu noonu violemment la réprimander manifestation pacifique boobu noonu ñu jël arme tiire si ñu bëri yaay jàmbur yi ñu jël leen def leen ay yoo xamante ni du fii laa koy waxee mais jàpp leen ni lu salte salte salte mën a salte rek def nañ ko yaayu jàmbur yi donc ñooñu bu ñu fipp ak doom yi nga xamante ni maltraité nañ leen loolu yëpp bu mu xewee Casamance yi maire yi ne seen doom yi aller représenter dignement la Casamance ñu constituer guérilla boo xamante ni on va résister à cet envahissement parce que gars yi dañoo ñëw bëgg ñu imposer doole pour euh, jël suñuy terre imposer ñu ci seen administ imposer seen administration boo xamante ni ñoom reconnaître ñu ko parce que benn Casamance euh, amuloon possibilité temps yooyu pour liggéey fa. donc yéen a ngi gis état sénégalais bi loolu la def Casamance après ay nit fippu boobu lañ duggee ci àll bi. jël ay armes ne ñoom dañuy taxaw représenter dignement les intérêts de la Casamance. après loolu lan moo am bu gars yi fippuwee ñu dugg état sénégalais bi dafa jël question casamançaise bi def ko problème mu ethnique ne problème mu joolaa la. affaire bi joolaa yi ñoom ñooy résistants yi ñoom ñoo nekk ci rébellion bi alors que jour marche bi ñépp a nekkoon ci marche bi ay pël yaa ngi fa woon ay joolaa yaa ngi fa woon ay olof yu nekkoon Casamance ñu ngi fa woon ñépp bokkoon jour boobu noonu ci marche pacifique boobu amoon Ziguinchor donc ñépp fa bokkoon ñépp la c'était toutes les couches confondues euh, toutes les ethnies confondues mais dañoo jël affaire bi daf ko problème mu joolaa ñu ne joolaa moom mooy résistant joolaa moom mooy moom moom mooy le rebelle comprendre ngeen alors que problème bi dañ ko def ñu mujjee bëgg ko def problème ethnique comprendre ngeen pour jéem a euh, dénaturer la chose pour masquer la vérité comprendre ngeen bu ñu nee affaire bi question de joolaa la léegi état sénégalais bi dans plusieurs de leurs tentatives lan lañ def man mii di wax ak yéen à l'âge de six ans laa commencé jéggi ay moor pour dem école moo tax Macky Sall mënuma tiital moo tax intimidation mënuma tiital à l'âge de sept ans huit ans laa commencé gis des cadavres sur le chemin bu may jàllee pour dem école ok léegi ma expliquer leen réalité bi léegi état sénégalais bi lan la def ay zones yi nga xamante ni mooy ay zone Bignona euh, Bayla Kujubi Dombondir ak yeneen village yi état Sénégal bi la lañ def ratissage lañ ko doon woowee ay loo xamante ni billaahi wallaahi watallaahi bu ma si fenee yàlla bu ma yeewu suba ratissage lañ doon def lan mooy ratissage dañuy jël benn village ciblé ko rey ñëpp ñu si nekk mag ndaw xale ñëpp ñu rey leen ñu exterminer leen ñu ne loolu nañ yaakaaree ni mun nañ jeexal rébellion ñu jël def ko noonu ay village yu bëri parfois bu ñu mënul egg village bi parce que day am ay ay ay stop rebelle yoo xamante ni dañ koy bloqué dañuy jël ay pilon am na ay pilon yoo xamante ni jululuun lañ ko samp jël ay pilon pilonné ay village yoo xamante ni Dombondir la Kujube ak village yooyu noonu pour tuer tout une population ay population yi nga xamante ni xamuñu kan moo ci rebelle xamuñu si kan moo ci rebelle ñëpp la ñu rey en même temps ñu ne yaakaar nañ ni loolu la question Casamance bi noonu lañ koy régler ñu rey ay nit yu bëri ñu si bëri daw dugg Gambie après ñu naan gambi moom mooy protéger les rebelles parce que rebelles yi bu ñu ñëwee Gambiens ñoo leen di accueillir alors que ñoom comment il voulait régler la question ça allait créer beaucoup plus de problèmes ça n'allait pas régler le problème parce que nit yooyu noonu boo leen reyee ci seen doom yi ils vont se ils vont vouloir se venger bu ñu ñëwee dañu naan ñii ñoo rey sama papi donc tey man je ferai tout ñii samay ennemis lañ donc ils ont voulu régler cette guerre à travers ay mesures yoo xamante ni à travers ay ay méthodes yoo xamante ni c'était pas les bonnes méthodes après ñu jël histoire bi masqué ko sénégalais di fen ci kaw doomu aadama yi dinaan lii ak ak lii moo fa après état sénégalais bi lu mu def dafa commencé récupérer ay terres ci loxo euh, joolaa yi nga xamante ni agriculture pour dundal seen bopp loolu moo nekkoon seen réalité joolaa yu bëri daanuñu woon jo joolaa musul jënd ay ceeb joolaa day béy liggéeykat la day béy euh, muy joolaa muy Casamance ñëpp ñu fa nekkoon dañoo doon béy pour dundal seen bopp donc autosuffisance alimentaire musuloon nekk problème en Casamance les gens se nourrissaient ils n'avaient pas besoin d'exporter du riz pour pouvoir am lu ñuy lekk gars yi dañoo doon béy ak seen kajando yi di béy vraiment pour am lu ñuy dundee léegi ñu imposer leen ay affaire de arachide parce que français yi ñoo bëggoon imposer culture kii arachide ah, dans cette zone la gars yi commencé am problème am lu ñuy lekk alors que il n'y avait rien qui pouvait employer la jeunesse il n'y avait rien loo xamante ni mënoon na permettre jeunesse bi ñu ñu mën a liggéey pour ñu mën a fajal seen bopp seen yenn problème yi donc dara amul usine amul luy employé amul dara dara dara existé wul école yi comment école école yi amutoon donc lépp lépp lu Casamance soxla woon il était obligé d'aller ailleurs pour pouvoir l'avoir yéen a ngi gis gars yi rebellé wu rebelle wu ñu ne lii mu lii munul nekk ñun suñu compagnonnage ak Sénégal gisuñu ci lenn lu dul musiba parce que amul dara lu ñu indil loo xamante ni lu positif la donc état bi dafa échoué sur dans sa politique d'intégration de cette zone du Sénégal. comprendre ngeen réalité bi déglu leen bu baax. Euh, dañoo échoué ci seen politique d'intégration après ñu jël affaire bi masqué ko mu nekk ay raisons ñu justifié ko. Euh, problème mu pauvreté bu am Casamance ñu ne Casamance daa pauvre parce que rébellion moo am mais est-ce que ñoom essayé woon nañu régler cette question de la rébellion à travers ay ay kii yu ay ay tali sax amut tali yu baax amutoon Casamance Abdoulaye Wade depuis Abdoulaye Wade ak tuuti ngeen la gars yi di defar ay tali Casamance di defar ay université di defar ay école mi yooyu noonu yëpp. c'était inexistant en Casamance donc chaque fois dañuy jël réalité bi masqué ko pour se justifier de lépp lu fay xaw gis ngeen ñu jël ay ta après Abdoulaye Wade ñëw commencé fa indi ay université commencé fa commencé fa délocaliser tuuti donc question casamance bi problème bi noonu la rëyee du problème ethnique du problème mu joola du problème joola contre olof du problème ñëpp bokkoon ci marché bi te ñëpp Casamance yëpp gisutoon seen bopp ci gestion boo xamante ni état bi mu ngi ko doon gérer Casamance léegi tey. lan la état bi bëgg def état sénégalais bi bëgg def jël ressources yu existé Casamance bu ko exploité par la force jël ay zircon yu am Casamance ne dañ koy exploité par la force zircon bu am ku bu bu am abenne ñu ne dañ koy exploité te au moins loolu bu ñu ko exploité day yàq côte yi côte côte yi nga xamante ni ñoom ñoo existé Sénégal gars yi bañ non rebelle tamit ak Casamance dafa bëri ressource donc Casamance yi puisque yow développé woo seen zone mënoo jël ne yow état Sénégal nga da ngay ñëw di exploiter seen ressource forcée di ko dem yóbbu alors que yow lépp li nga exporter ci yeneen régions yi état population yi mosuñu si gis benn njëriñ léegi ñoom nee nañ forcé dañuy exploiter ressources yu am Casamance yóbbu ko jox ko yi ñoom ñu pàccoo ko ak tubaab yi gars yi bañ rébelli ñu nekk di def rébellion ñu ne leen loolu du mu sa am yéen vous n'avez rien fait pour la Casamance aujourd'hui sol bi vous voulez faire comme dans les autres zones du pays exploiter ces ressources là alors si gagner dara donc ñaari à chaque fois bu ñu waxee ay affaire de exploiter ay ressources Casamance moo tax gars yi di jóg rébellion bi ngeen di dëgg gars yi reyante parce que loolu gars duñ ko mës a nangu donc état Sénégal bi qu'ils disent la vérité à la population sénégalaise gars yi rébellion bu amee rek c'est parce qu'ils veulent toucher à des intérêts yoo xamante ni gars yi dañoo bañ ñu yàq ko ñu def ci ko def ci lu leen neex Casamance yi duñ ko mës a te ñu ñoo xamante ni ñoom ñoo nekk ci àll bi boo leen yaakaaree ni noonu ngeen mën a réussir à à à créer la paix vous vous trompez Casamance Casamance lan moo fa am gars yi après gars yi sont ouais il y des zones minées parce que ils étaient obligés de miner certaines zones pour empêcher l'armée l'armée l'armée comme gars nu ñu koy waxee l'armée sénégalaise on est tous comprendre ngeen ma on est dans un ensemble on est Sénégal mais dañuy ne armée fële dañoo ñëw pour mais il faut barrer parce que ñoom ñooy autochtones ñoo xamante ne xam nañu zone bi donc il faut mettre des mines pour empêcher à ces gens d'accéder ci zone yooyu noonu donc état Sénégal loolu mooy moo nekk manigansom en Casamance léegi ñu jël képp ko jóge Casamance ñu naan la rebelle nga lii nga lii nga ba population sénégalaise bi nga xamante ni comme colonisation rek boo ko fi waxee ay français yoo xamante ni ci école yi lañ nekk nga xool nu ñu leen koy jàngalee ak ñoo xamante ni vivre nañ réalité bi nañ koy expliquer état Sénégal bi nu mu expliquer réalité bi ak ñoo xamante ni vivre nañ réalité bi il a une grande différence donc la plupart des sénégalais version bu ñu am mooy version bu état Sénégal bi eh, camouflé pour leur servir ci auto ci benn plat boo xamante ni moom la ñuy consommer donc question Casamance bi noonu la demee léegi yéen man en tant que panafricain comprendre ngeen dama bëgg mu wax ji leer en tant que panafricain je ne vois pas l'Afrique dans un morcellement perpétuel qu'est-ce que ça veut dire je ne vois pas une autre balkanisation de notre continent on est dans un cadre de figure boo xamante ni ay ensemble la ñu war a former ensemble la ñu war a former waratuñu fi nekk di diviser état yi di ko morceler en petite partie léegi lan laa bëggoon wax fii nii mooy bu ñu bëggee vraiment Sénégal ñëpp profiter ñëpp ñëpp nekk ñëpp Casamance ñu ñu pare ci conflit bi essayons vraiment du d'user d'une autre méthode que état Sénégal méthode bu mu employé depuis plusieurs années jël ay nit jox leen xaalis bu bëri ñuy mbubboo ni ñoom ils sont les représentants du MFDC wala affaire yooyu dañuy régler crise bi alors que dañuy dem di tabax seen i kër di tabax ay état di jël xaalis bi di ci dundal seen doom yi ñu ne ñoom ñooy représentant Casamance pour problème mu Casamance jeex donc yéenay comprendre bu ñu bëggee problème mu jeex il suffit juste am ay politique yoo xamante ni de désenclavement de la Casamance la yuy permettre Casamance yi ñu mën a am tuuti espoir ci condition de vie yoo xamante ni c'est atroce condition de vie yoo xamante ni non mais mënoo leen imaginer li ma leen di wax pour la plupart ñoo xamante ni ils ont vécu pendant longtemps en Casamance ils savent la réalité que j'explique il n'y avait rien du tout il n'y avait rien donc état sénégalais bi masquer le fait qu'il n'y avait rien euh, avec, le fait que avec le fait que euh, y a la rébellion donc euh, voilà donc ils ne veulent ils ne peuvent pas gérer cette zone puisqu'il y la rébellion donc léegi état sénégalais bi ak keneen kuy ñëw pour nekk président il est simple de désenclaver une zone comme la Casamance amal ay politique yu baax intégrer vraiment cette zone parce que zone la boo xamante ni moo ëpp ressource ci Sénégal ressource yu ñuy wax Sénégal yëpp lu ci bëri ci Casamance la concentré mais bi doo leen ko mën a laal parce que noo leen bëgg a agiré gars du ñu leen ci seetaan du ñu leen bàyyi gen agiré noonu di di lapider seen ressource donc fexe leen ba ñëpp ñoo xamante ni Sénégal ku képp ku bopp fépp ak mu am ressource population yi commencé profiter ci ressource yu am ci dëkk yooyu noonu yéen état bi ak seen mbokk ak seen clan yi mënoo leen continuer di exploiter ko partager ak tubaab bi yéen ngeen am ci ci seen part population yi continue di dund misère loolu mun ta nekk mun ta nekk loolu gars yi après di ngeen ne rébellion bi day kii rébellion bi du mës a jeex mais yooyu day tax ba du mës a jeex loolu day tax ba du mës a jeex fexe leen ngeen am ay politique yu baax pour intégrer cette zone cette zone sud du pays ci ay conditions yoo xamante ni mooy ay anam yu baax vraiment ñëpp sentir seen bopp ci seen gestion mais bàyyi di justifier le fait ñaar n'y a rien en avec la rébellion qui existe dans cette zone Euh, man à travers sama expérience personnelle ak ñoo xamante ni toog na ak ñoom ci benn table te ñu bokk ci ñu wàccee drapeau bi Ziguinchor jouru rébellion bi bu mu déclenché wo ak li ñu ma expliquer ma def benn résumé bu ndaw ma ne on a un devoir de rendre compte aux Sénégalais de ce et est la vérité en Casamance. donc résumé la waxu du ma fi nekk di wax parti yëpp après day gudd te live bi bu guddee rek ñu bëri duñ ko mën a seetaan donc lii mooy réalité bu am Casamance léegi. Euh, que Cissé Lo di fi ñëw di naan Ousmane Sonko rebelle la ay papam papam ay xarit yooyu c'est très dangereux yooyu c'est très dangereux parce que Casamance instant yi nii population bi ño ngi am espoir yoo ngi ñëw di raviver tension yi di fi wax ay problème ethnique encore ay rébellion ay kii mais ñan façon nit ñoo ñu diriger ñan façon nit ñoo nekk ci suñu kaw état bi ay dof ñoo ñu diriger. ay dof ñoo ñu diriger actuellement ñoo xamante ni ci fibre bu ndaw la ñuy jouer pour taalaat dëkk bi après bu ñu waxee ñu ne ñeneen ñoo bëgg a taal dëkk bi mais ñii dañoo bëgg taal dëkk bi. ñii dañoo bëgg a taal dëkk bi nit yaa ngi xaar état bi am ay politique yu baax pour Casamance ñu pare ci question de rébellion bi ñu xalaat leneen Sénégal nu muy développé muy ñëw di indiwaat ay tension fii nii te xamul te tension yooyu noonu moom papam ak yaayam ak doomam kenn kenn du ko vivre ñeneen population ñoo fiy nekkaat di ci sonn bon boo boo leen boo leen xamul question Casamance bu leen xam boo leen xamul nu mu sensible ya ah téy leen seen gémmiñ à chaque fois boo leen di leen seen gémmiñ dama leen ko ñaan quoi parce que ay vies humaines ñooy nekk en jeu doo leen ko yëg parce que boo tey bu ma déggee ni mort am na Casamance man mun naa xam nit parce que xam naa ay nit yu nekk si zone yi nga xamante ni chaque fois ay zone de tension la xamoo leen man lan lay def doon doomi am nañ ay mbokk yu nekk si zone yooyu noonu wala xam nañ ay nit yu dëkk si zone yooyu noon donc bàyyi leen di foowe affaire de rébellion Casamance lu sensible la te ñun ñëpp jàmm lañ bëgg mu am Casamance jàmm lañ bëgg mu am Sénégal mu nekk Sénégal bi nga xamante ni Sénégal bu ñëpp di référé wu la mais à travers ay politique yu baax yu suñu état bi di en place pour que vraiment zone yi yëpp a développer au même rythme que ay zone nga xamante ni bëri nañ potentialité mais nañ leen def ay zone économique capital économique ñu xool ndax problème case problème yi du jeex Cameroun lan def dafa am capital économique am beneen capital mais yow nga gis ni zone bi nii bëri na ay matières premières bari na ay ressources nga bëgg ko ñëw exploiter d'une façon boo xamante ni population bi du ci sentir seen bopp loolu tamit yaakaar naa ni problème la problème la donc gars yi lii moo nekkoon live bi euh, résumé bu ndaw la woon ci man sama expérience ak connaissance yu ma am ci Casamance maa leen di ziar di leen sant bu baax partagé leen vidéo bi ñëpp ñoo xamante ni xamuñu dëgg bu nekk Casamance xamuñu réalité bu nekk Casamance ñu yaakaar ni problème mu Casamance problème mu joolaa la contre olof wala problème mu joolaa contre mandeng bii nii du problème mu joolaa problème de toute une population qui s'était levée la confondue mélangée boo xamante ni dafa doon réclamer une meilleure un meilleur traitement une un meilleur traitement des populations de la Casamance Casamance donc loolu moo nekkoon question bi maa ngi leen gërëm di leen sant di leen ñaan ngeen partager bu baax asalaamualeykum wa rahmatullah maa ngi leen di ziyaar yéen ñëpp